ak jafe rendez-vous ñu ni la ñëwal dix heures dix heures moins cinq fekk la ngay fëgg bunt bi ak jafe ah fii da ngay toog mur la ñëwal dix heures nga toog ba dix heures nga déparé sa kër jërëjëf laa ko la dama am tàngat eh, boo ngeen ñaanal ma fatiha rek ah ku xool ndakaaru ni mu mel nga xam ni bu jëkkoon sax day am ay waxtu ak am am ay yoon mais léegi waxtu woo jógee ma ngi xat yoon woo jaar mi ngi xat Chérif ñi la ñëwal 10 heures nga xaar ba 10 heures nga départ euh, Pikine bi ñëw mais bala ngay agsi 13 heures jot. doy na waar ah, fi nuy xamee jug koy sang pire mooy du manqué waxtu waaye nit nit ki ñëwal 10 heures. nit ki góorgóorlu ba dix heures moins cinq fekk mu toog ci sa saal nga nekk ci li nga nekk ba treize heures nga koy doog a recevoir ca wan nga ne ko ñëwal treize heures ndax diggante dix heure ba treize heures mën na fi liggéey dara mën na fi jàng xam-xam mën na fi jaamu yàlla ah te wal asri inna al insana la fi xusr temps dafa cher ñu jox la ko te pertuloo jàmbaar piir a ko mën innal insaana la fi xusri hmm? wa ida machayta ila al ida fa gadan farum wa ida jazayta fa innaka nakbaa ah ah muhammadun rasulullah walladina maahu ashiddaau ala alkuffar rahamaau baynahum est-ce que barakallahu ñu ko yow la fekk ci say biir soppe ñu yaakaar ni doom mer waaye bëccëg bu yàlla meree ba nga waaxu jëm ci ñi merloo yàlla ku lay gis kaynde lay gis lootul gis jëmmi nit kaynde faxadan farun mooy al asad al kabir gaynde gu mët li mu doon wa ida jazayta fa innaka waaw boo yegee bay fudd seen ndigg na koy mëneeg na muy gaawee xam ngeen ngelawu càlla lañ koy wax xaw ma riixun bay na riixay ni hmm? riixun bay na riixay ni wa tamuddu xilmaka li safiihi mudaariya xataa yadiqu bi ardika sufaha ñu ko àgg nga ci ormaalal yàlla jàmmam yi soo génnee sa buntu kër pour dox soxla ñi ñuy tuddee boroom xel yu wayat yi ñu la gàttandoo téye sa loxo duñu rocc doo rocc sa loxo mukk tànk roccewuñu seen loxo doo dem mukk tànk parewunoog yow da nga leen di jox sa bopp ba ñoom li seen xel di gàtt gàtt ñooy mujj génne wu yëg ni ñu ngi lay tàggat ñu bàyyi la ndeysaan <laughs> gis nga de a ah? wata muddu xilmaka lista fihi mudaariyan xata yadiqu bi ardika subaab ñoom sax ñooy dem ba xam ni li seen xel di gàtt gàtt ñu ngi lay lor te jaadootul ñu bàyyi la du cof mukk jaamu yàlla cër boo mën a am bul cof jaamu yàlla benn kaddu doy na gor la wóoree ni li ngay dox yi munoo ci taxaw cinq minutes wax ko kàddu yiw ni ko bu ma dellu seenu gisee waaye may leen ma aw ma temps aw ma temps bi ardika sufaha hmm? fi kulli nafsin min xutaak min min sutaaka mahabatun wa li kulli nafsin fi nadaaka rajaaw ñaar bu nekkee ci xar kanamu kilifa jaanam wàcc na ku nar caay-caay bu la nee jàkk dellu gannaaw ku yaakaar yiw bu la nee jàkk tàllal la ñaari loxo jeex na ah kilifa bu la yàlla defalee li ñuy wax hayba hayba mooy crainte révérentielle bokkul ak ragal bi ngay ragal gaynde mais orma lay doon daloon Seydina Ali bi muy tëj jàkk yi Bagdad ànd ak ay xale révolution di tëj jàkk yi di génnee ña fa nekk ba agsi ci juma imam alxasanul basri yi fekk góor gi di naafi ñu jàkk xar kanamam xam ni kii du ku nuy taxañ bàyyi ko ba góor gi naafi la ba yeggal toog na Ali nuyoo mu fay ko Seydina Ali ni ko dama gàgg bëgg nga gàgganti ma ni ko lu doon sa gàgg ni ko nu nit di def ba mucc góor gi ni ko wattandiku wattandiku Seydina Ali ni ko yow waratoo noppi yow rek yaa war di wax wattandiku wattandiku boobu defar na àdduna ak àllaaxira wattandiku hmm? wattandiku doo gaañu waaye ñaar ku ko yàlla defal ngay kilifa sa jàng wàcc na ku nar caay-caay bu la gisee dallu gannaaw ku yaakaar yiw bu la gisee tàllal la loxo hmm? wa rayu lam yumdal muhannadu duunahu ka sayfi lam tudrab bihi l gis nga àll ñaara am béjjëlu xalaat ak béjjëlu coxor ak béjjënu coxor sëñ nee na balaa ngay sot ngeen sot yenn xale yi jël paaka bi ñawal cat bi pour mu mën a jam waaw balaa ngay sot sa béjjënu coxor pour mu ñaw sotal sa béjjënu xalaat ba noppi am la waykat ba di wax ni ar rayu qabla shajaati shujaani huwa al wa hiya al mahallu saani fa la rubbama taana alfata aqraanahu birrayi qabla tataawuni l aqraani fa ida fa ida huma ijtamaa li nafsin xurratin balagat ila al aliyaai kulla makaani mu ni lawla al aqlu la kaana adna daygamin adna ila sharafin min al insaani mu ni jël jiital xalaat laata ngay bocci jaasi li xalaat mën a régler moo ëpp fuuf li jaas yi mën a régler xalaat mën na régler te du yàq jaas yi nag même bu defaree dana yàq doo ko defare mu nu yonent bi yow nag sa pénc laata ngay bocc jaas yi da nga da ñawal sa xalaat ba noppi hmm? nga ñawal sa xalaat ko defee nag defar na àdduna bi nan la defare àdduna bi mooy zaanat ka fil xuluqi l azimi shamailu yuxra bihinna wa yulaau lkuramaa hmm? ma shawqi nee na yonent bi sallallahu alayhi wa sallam makaarimu axlaaq yi nga ràngoo jukkoy sang yi ci yow dem na ci ba ni ko sax law lam tuqim diinan la qaamat waxdaha diinan tadiu bi nuurihi l anaau mu nu yonent bi bu la yàlla joxul woon diine yi lislaam ngir nga jottali ko jaam yi sa jukko yi nit ñi gis ci yow jukko yi nit ñi gis ci yow te diine ñëwul doy nañu ñu jàppe ko diine ndax mën na leeral àddina bi même bu lislaam ñëwul woon say jukko mën na leeral àddina bi luñ ko daan wooyee laata risaala gi as-saadiqul kon nag fexe na ba indi ci pénc ci équilibre waaw xam nga lu mu ko defe alxarbu fi xaqin ladayka shariatu wa min assumuumi naaqiaati dawaa pénc soo waree régler musiba régler ko bul ko dugal ci tiroir yi di ko xaare déwén ndax ba balaa déwén fukki musiba walla junni tegoo te te xaw ma tegu ci kawam mu ni ko dina metti nag waaw mu ni ko buñ gisee nga nga de nga boole ci sa programme guerre xeex te yàlla la ko sant uzina lilladina yuqaataluuna bi annahum zulimu wa inna allah ala nasrihim qadir dañ ko jox ndigal ni ko xeexal alxarbu fi xaqin ladayka shariatun waaye wa min assumu min naqiati dawa mu ni ko xeex bi ngay xeex rey nit ñi taxul mais arrêté injustice moo tax jàngoroy jukko yu suufe yi nga xam ni bu lawee ci pénc yàq société nit ñi dootuñu am sécurité dootuñu am stabilité dootuñu tal seen bopp bay tal seen borom loolu nga bëgg freiner moo tax nga indi xeex mu ni ko mu ngi mel ni ki feebar seeti docteur sëñ Mansour a ngi nii bindal ko ordonnance garab ga muy jënd ca pharmacie garab ga ka ko defar boole na ci poison am de am na doos bu ñu ci def ci poson mais doos ba mu ci def ci poson pour mu rey malade bi taxul pour mu éliminer maladie bi moo tax ah <laughs> xeex nga waaye rey nit ñi taxul arrêter violence dindi injustice moo tax hmm? wa mina sumumi naaqiati dawaa ku dem ca ba ni ko wa an safta ah, jaat fa waxadati zakatu sabilahu xatta altaqal kuramaau wal buxalaau waaw ah, ku mënul fexe ba ñaari njaboot nga am ko ah, njaboot bi mën boppam ci am-am ak ki mënul boppam mais ña ñoom ñaar bu ñu dajaloon duñ ca xam ku ñàkk ko am ku ko mënul fexe bu yilif jàmm yàlla yi <laughs> fexe ba ñi am ba bare la ak ñi amul dara tase bu ñu la nee ana milliardaires yi doo leen xàmmee ci biir taalibe yi ku ko mënul buur bul dajale njaboot ndax ah sëriñ bi nee na jafe na de seen maam de loolu la def seen maam lool la def de wallahi nee na léegi borom xaalis yi la gaa yi dugal ci saal bi saal bu ndaw bi ñi amul dara toog ci saal bu mag bi di xaar sa maam cheikhul xalifa radiallahu anhu am ko ko ñëw ziyaara jox ko juróomi dërëm addiya waaw am fekk am na ko ko jiitu indi xaalis bu bare tàllal ni koy ñaanal na sëñ Babacar tàllal ñaan gi gaaw lool ni ëf mi ngi am gan gu toog moom am ko indi juróomi dërëm jox ko sañ Babacar téye loxo yee yàgg fa lool di ñaan bu mu paree kilifa gi ni ko waaw dama jaaxle ki indi addiya bu duun da nga loxo yi rek ëf kii indi juróomi dërëm nga téye loxo yi ba bëgg fi yendu ñu koy ak borom juróomi dërëm yi soppe la xooluma juróomi xol bi laa xol la ilaha illallah ah léegi gars yi xooluñu xol yi de ah ndeysaan dama am sama benn wëla shérif ku ñemee dëgg jëb lu ci sëriñ jox ko muy léppam sëriñam di gàmmu at mu ne mu jóge bitim réew du fekk gàmmu bi sëriñ bi bu gàmmu bi jotee teraanga yépp ñëw bu nu gàmmoo ba seen kër du matin sécurité yi jël ko dugal ko ci biir néega mu tëju nit ñaran ca biti di xaar ba xat di dem ñibbi atam mu def ko tëju rek taalibe bi waaxu comme am na barke ci kër gi ndax mooy indi tabarkal la mu ñëwee rek gaa yi ubbil ko mu fekk sëriñ bi ci biir mu jaaxaan mu ni ko sëriñ jógal wax ak jaamu yàlla yi soo amee loo leen di jox jox leen soo amoon loo leen di jox nga wax leen kàddu ko yiw gis nga ñi doon joxe ñëw nañu démb ak bërki démb tey ñiy laaj ñoo fi def jógal partagé ak jaamu yàlla yi li lay jaamu yàlla yi jox hein ay laaj ba ñu jox la nga fat ko lépp lekk ko yow rek musiba la masaakiin yi toogoon di xaar ku ne xam na la nekk këram te yaakaaruñ ko tey kudul ci yow tey xol yépp ci yow la ko yàlla orienté nga pare fatu ci biir tas yaakaaru yépp lañ la jox boo ko maccaatee fot tadaw min jawharin minhu nabiyul mustafa salla alayhi allahuma janna duja wa ma jarat fi falakin shamsu duha bañ gu ñuul përëm ak xaalis ak wurus du ñu yam ak jama salaasilu sigat min safai zabarjadi ila sayidi al axlaaqi yowma ittisaalihi samaam am na ñaari ligne bu ko neexee ni allo Cheikh Omar allo Cheikhuna Tijani allo yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñu wuyu ko bu ko neexee baleen fa ni allo yàlla rabbul izzati mu ni ko naam maalik kooku ñu jotu tëkkaale yóbbu sa mbër ca làmb day fekk mu am fa moroom <laughs> day jël champion di ko booleeg soq yi tuuti sa mbër la na takk nañu ko bañ xam nga lu am solo nañu jàpp ci sharia yi mu dëgër dañu fonk julli te laaba ko jiitu nañu jàng laab sàmmoonteeg moom tariqa bi dafa am ay mbir yoo dul gis ay gaay yoo dul gis boo gisee ñu lay sant foo toll ngay ànd ak laab mooy bis boo leen kontaanloo ba yàlla bég ci yow bu leen yebalee pour ñu defal la fatxu bu ñu la fekkee nga laab ñu ëf la nga sotti buñ la fekkul nga ñu seet ka laab ñu def ko ci yow nga tëdd di nelaw dañu sàmmoonteeg taxaara sàmmoonteeg sharia julli te di ko teewlu di ko sellal koor di ko sellal ku am azaka génnee ko xewwi na da léegi waaye ñun bu ñu ko xewwi ku mën dem màkka demal sellal ko wutu tur bu mu tax bi ci des mooy na salaatul faatixi bi bare ba saf-saf na jawharatul kamal bi bare ba saf-saf na alquranul karim gi bare ba saf-saf soo ko defee boo génn déranger oh, arab ba dafa nam mbokkam du solu sol baxa cuuraay tuuroo parfum dem di ko nuyu mu jub kër ga xaj ga mbaw ko ërtël ko waaw xaj bi baw ko te nit ku yiw xaj rek lay moytu xaj bu ko ërtël rek lay bañ hmm? u metti ko mu ni ko ah, bajo bi maa tooñ sama bopp man mii ñëw sol baxa cuuraayu tuuroo parfum ni ko sa boroom xamu ko li mu xam mooy sàkkusaan jot mu dem wuti mattum salaan ñëw taal ko pour dàqe ko yooyu kër gi xeeñ xunn xetu mattum salaan boobu saxaar soosu moom nga miin miinoo sama cuuraay bi ak sama parfum hmm? ko su ma génnoon sama kër rek di xeeñ li nga miin kon doo ma baw waaye li ma xeeñ nga miinul hmm? waaw kon li ma xeeñ nga miinul yii ku mu saf ci yow boo ko yëgee boo ko yëgul yaa ngi déranger waaw waaw law kuntu axmilu jamran zurtukumu lam yunkiril kalbu anni saaxibu daani doon bi may ñëw mattum salaan laa yor muy saxaar kon xaj bi duma xàmmeeg boroom kër gi ndax loolu la xam lakin ataytu wa riixul miski yàqdumu nii wala ambaru nëbtu masbubun naar yi mu ne ko waaye bi may ñëw cuuraay beeg parfum bee may jiitu ci kër gi loolu nga miinul yow xaj bi loola tax nga paw ma kon nag message baa ngi noonu sëriñ bi baal ma guddal naa dama ñemewul sëriñ Habib téléphoné ni ma waxtaanal nga wax ma ko ma da teg baat léegi nag li ma wax a ngoog su jubee yaay mottali su jubul yaay jubbanti yu ci manqué yi yaay defar njaboot la delloo naa la kàddu gi tabaarakallah sanul xaaliqiin delluwaat jéggalu la jéggalu mbooloo mi ci guddal bi ñu ngi sant day rek di feddali suñu kóllëre rek ñoom wasalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. kon ñu ngi nuyu imaam ahmad si bu baax di nuyu Thierno Boubacar Tall nuyu nañ leen lu jiiti ngeen di ñëw Abdoul Aziz Ndaw Modou Ndaw fa tabaarakallaahu ahsanul xaaliqiin xam naa jotaay bi sax nii la dàqee nag ndax yëg naa ne sax yàlla dugg na man yàlla rek a tax may wax du njaay Jamil mook Babacar ñu ngi door a yegg si ñu ngi leen di nuyu di leen yóbbante nuyu ci xalifa bi ak góor gi kon ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp mu balati ma xaq nag bu baax a baax suñu sang la suñu kilifa la suñu sëriñ la ñun kuñ dajeel ci kër Cheikhul Hadji Malick na mujj juddu tey mooy suñ kilifa mooy sama kilifa na ko ku jigéen jur wala ku góor jur ko xàmmeewuma leen bu jigéen juree mën na bañ a sant si moo tax ma ne na ko jigéen jur ka jigéen jur ak ki góor jur laa yemale képp ku ma ci gis Cheikhul Xaaji Malick laa teg sama bët kon nag loolu si Malick maa ngi feddaliwaat sama kóllëre ci yow di yeesluwaat suñu kóllëre ci yow donte màggetul ndax démb la woon ah di la doole dënkit njaboot gi ni ma la ko dënkee woon newuma fa yaa fa ne sama sama lépp ca foofa teg naa ko ci sa loxo li ma xam ci sëriñ eh, ci wax naa ko léegi eh, sëñ Baye xalifa si Baye Mbàkke wax naa ko ko léegi téléphone maa ngi lay tudd te boobu xaw ma woon ni sax yaay ñëw yàlla sedd na ko kon nag fa tabaarakallaahu eh, ñu ngi lay baluwaat xaq bu baax a baax a baax man daal maa ngi jéggaluwaat maa ngi jéggalu ñëpp góor jigéen mag ndaw maa ngi bool maa ngi bokk di bàllu xaq ñépp di ñaan lii yàlla bu ngeen gisati xaal bii ci man maa ngi koy ñaan te sëriñ bi laa jaar ci moom nag mu jéggalul ma ñépp ndax maa ngi ko teg ci wax bi yàlla wax yonent bi ne ko walaw annahum id dalamu anfusahum jaa'uuka yow yaa ko fi toogal jaa'uuka fastaghfarullaha wastaghfara lahum rasul kon boog yaay rasul wa istaghfir lana rabbuna wastaghfara lahum rasul bu boobaa la wajadullaha tawaaban rahiman yàlla ñu ko yàlla defal si Malick si Demba Bunna si Demba Xoreja bismillah allahi taala wa barakatuhu ñi ngi dellu di sant yàlla di julli ci seyduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam ñaan yàlla sunu boroom sant yooyu ak julli yàlla nañ ko yàlla nangul te suñ ko nangulee yàlla nañ ko dencal ba ëllëg yow mal xiyaam mu doon yiw bu ñuy jariñoo ñu nag mboolem jullit di nuyu kilifa yi fi teew yépp di jiital ci nuyu bi Chérif Ibrahima Haydara di ko jox wàccuwaayam di feddali di feddali sama kóllëre ak moom nii mu ko waxee noonu la ame ndax diggante bi yàgg na lool mu commencé ci sunu ay mag di wàcc ba ci ñun waaye sama digganteeg moom dafa am loo xam ni yàlla moo ko ci dogal muy man yëg naa ni moom ku ma jox cër la ci biir ak ci biti te cër bi ma jox cër bu dëggu ci moom bokk na ci ba bu musaana ñëw Tiwaawan di def ziyaaram day jaar ca kër ga mu doon lu yàgg kon bu waxee ni sunu xameel yàgg na sunu fulale yàgg na loolu moom moo koy firndeel ñi ngi ñaan yàlla nag yàlla na ko yàlla saxal yàlla na ko yàlla saxal di wax ni nit ku nekk nit la dangay am yëg-yëg ndax tool bi nga nekk di ci liggéey ñu war la ci jàppale war la ci jëmmal war la ci dooleel soo ci gisee loo xamante ni dafa am te xamoo lu ko waral foog nga jooytu ko kon ñi ngi koy ñaanal yàlla yàlla na yàlla dëgëral ko yàlla sàmm ko yàlla aar di nuyu sunu kilifa yi teew muy imaam si ak imaam imaam taal ñi ngi leen di jox seen wàccuwaay di leen jox nuyoo sëriñ Habib si ak imaam kundul ñi ngi leen di nuyu di leen ziyaara bu baax a baax di leen ndokkeel ci bés bi di nuyu Serigne Abdoul Aziz Fall di rafetlu waxtaanam di ci am mbégte lool di ci am yéeg yëg bu kenn xamul nu mu toll yéeg yëg bi ma ci am nag lenn la rekk lenn la mooy bi muy waxtaan man sama yëg-yëg mooy yonent bi mi ngi ci jotaay bi sallallahu alayhi wa sallam ruuxiyam nag laa wax mi ngi ci jotaay bi ndax yonent bi fu mu fu mu fu mu bëggul ñu waxtaanee ko wala fu mu bëggul a ñëw kenn du ko fa waxtaane su ngeen gisee bi mu teniree discours am ci tàmmalikaayu ba fi mu daanelee yonent bi rek lay wax sallallahu alay wa sallam man fi ma toog ma yëg ni yonent bi mi ngi ci jotaay bi ruuxiyan nag laa wax ndax am na ñu gàtt xel ñoo xam ne boo ne yonent bi mi ci jataay bi ñoom jëmm yonent bi rek lañuy xalaat yonent bi weesu na lool yan mi ngi fi kan lañu defal bés bi ah sedd na Cheikh mi ngi fi ndax du dem mukk bàyyi sëtam yonent bi du dem mukk bàyyi sëtam kon ñoom ñaar ñëpp ñi ngi fi ci ku am yëg-yëg yàlla nañu yàlla nandal ci seeni leer ba ñu màndi di nuyu Pape Mansour Niang moom mi nga xam ni mooy kilifa daaira bi di ci jaare ci moom di nuyu waa daaira bi yépp ci góor ak ci jigéen di leen ndokkeel ci bés bi di nuyu tamit soxna aasi sunu doom la sunu jigéen la di ko jox wàccuwaayam ak soxna Faat si mi mu àndal di ko ñaanal yàlla yàlla dëgëral taxawaayam ñoo bokk lépp waaye man ku ko naw laa ku ko bàyyi xel la ndax coono bii muy daj yëpp mënul na ko cee bañ a fekk mënoon naa dem nekk ci leneen te kenn du ko wax dara waaye mu xam ni ndono dafa foor mu jaral ko mu bàyyi lépp ñëw taxawee lii kon nag ñi ngi koy ñaanal yàlla na ko yàlla dëgëral ci barke yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di nuyu sunu bàjjan yi fi jot a ñëw muy bàjjan ummu ak bàjjan na fi ñan ñoom it ñu ngi leen di jox seen wàccuwaay ak marraine bi muy soxna ban bana banaa ja ak soxna karima karima fi karima jàgg Karima Chérif Diack waaw ah kuy ànd ak Chérif Chérif nga di ah waaw kuy ànd ak Chérif Chérif nga kon soxna Karima Chérif Diack waaw kon ñu ngi koy nuyu bu baax a baax di ko di ko jox wàccuwaayam di ko ñaanal yàlla taxawaayam tamit yàlla dëgëral ko bi ñuy ñëw nag ñi ngi ànd ak Mouhamadul Habib Fall Serigne Habib boole ñoog moom moom sax waroon naa jël kàdduwaay guddi bu mu guddi moo tax ma jël micro bi wax ak Mouhamad njaay ak Hadj boo kër lii moom it ñoom ñu am taxawaay lañ seen taxawaay lenn la rek mooy jël seen téléphone woo ma fan nga am programme bu fekkee maa ngi Tiwaawan ñu taal seen oto fekk si ma foofu jël bu fekkee maa ngi Ndakaaru fu mu mën a nekk ñu taal seen oto jël si nu indi loolu rek mooy seen taxawaay nit ku lay defal loolu nag te xadara bi tax mu koy def waaye sama jëmm taxul fu ñu dem daañ ko fise nit ñi ñaanal leen yàlla yàlla barkel leen loolu rek mooy seen taxawaay kon yàlla na yàlla sàmm leen ci barke yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di joxe nuyoo Serigne Habib moom ci boppam moo waroon a ñëw waaye yàlla dafa dogal Serigne Habib dañ ko yilif te ku ñu yilif mënoo yilif keneen démb mi ngi woon ndakaar ci katmiya bi parcel am na ñoo xam ne ñu ngi bokkoon ak moom foofu mu xëy ñu woo ko ni ko da ngay bokk ci délégation bi nga xam ne dañuy dem Touba jóge Tiwaawan ñu boole ko ci man dama ñëwoon Dakaaru ngir dox soxla delluwaat Tiwaawan mu woo ma téléphone laaj ma fu ma nekk ma ne ko maa ngi Dakar mu ne ma kon bul ñëw nga ñëwal ma fii utuma fi loolu mooy sama tànk waaye man ci sama jëmmi bopp xam naa ni aw ma capacité aw ma énergie aw ma benn kàttan pour mën a wutu sëñ Habib ndax ñoom suñuy sëriñ lañu ñoom suñu ay sëriñ lañu suñu ay sang lañu ñun ci seen suuf rek la ñuy nekk ba yow mal xiyaam du deñ mukk nag kon bu ma yebalee mbaaxam la ak yaatoom waaye am na ñeneen ñoo xam ni ñoo ma mag mën maa jur ëpp ma xam-xam téeméer yoon sëñ yi mën leen a yebal mu tànn ma man mi nga xam ni maa gën a tuuti ca famille ba mu yebal ma kon loolu mbaaxam la loolu ñu ngi ko ciy sant bu baax loolu moo tax sëñ Habib ñëwul loolu moom mooy ngàntam waaye liñ ci bëgg a yokk ci waxtaan bi ndax fii kenn amatul looy wax kenn amatul looy wax ndax sëriñ Abdul Aziz Fall ëmb na lépp teg ko fi mu nekk li ñu dese mooy ñaar takku ak jëfe li mu wax dafa ubbee nag loo xam ni dafa am solo mooy yàlla yonent bi alquran ñett yooyu la ubbee taxaw nag ci yonent bi waaye ñu sallallahu alayhi wa sallam ñu am seetlu ñaata at ñaata at waxkat yi ñu ngi wax ah bañ dalee wax ak léegi ñaata at la kenn mënu ko takk waaye léegi ñun ñi ñuy waxal est-ce que wax ji mi ngi def jeexital ci ñun bu ñu waxee dëgg rek est-ce que mi ngi def jeexital ci ñun ñu wax rek te yàlla tax ndax bu waxtaanee ci yonent bi sallallahu alayhi wa nga xëy suba nga xëy suba taal sa rajo dégg kilifa diine goo xam ne ñëpp dañ koo yaakaar mu jël kilifaam moom teg ko ci kaw yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mais loolu rek moo fi am kilifa gu ñëpp yaakaar nga jël sa sëriñ teg ko ci kaw yonent bi sallallahu alayhi wa sallam kon waxtaan ci yonent ban jeexitan la am ci ñu non seulement kilifa gi la mu wax dafa garaaw waaye ñun dañuy am temps wu déglu gravité waxtaan bi loolu li ñu li ngay ciy jànge mooy nit ñi seen cofeel ci yonent bi sallallahu alayhi dafa des dafa des ci jamono yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dafa am benn nit biñ ko tàggee yonent bi dafa ni yàlla mu muural samay bët ndax man bëggatumaa gis ci samay bët yi koo xamante ni du yonent bi sallallahu alayhi wa kooku cofeelam buñ ko dee natt ak ñun xaajuñ ba koy dab xaajuñ ba koy dab kon nag waxkat yi bañ dalee wax ba léegi at yi mu am mënuñ koo natt te ñoom it li ñuy wax njariñ liñ ci jublu ngir ñun ñu jariñu waaye ñun fa ne woon fa la ñu ne ba léegi te ñoo bàyyi conférence yi gàmm yi ndax xam nga lu muy jur lu muy doon coono boo xamante ne du la jëral benn njariñ mooy li Chérif Ibrahima doon wax ndax daje bi yombul kenn ku ne dafa am loo bàyyi ñëw toog yaa ngi joxe ay rendez yaa ngi am ay yitte yu bëree bëri bëri nga bàyyi loolu lépp ndax lii boo ñëwee toog taataan ñu wax la ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam pour nga jariñu mais boo fa jógee fàtte nga kon amatul njariñ tey ñoo bàyyi gàmmu yeeg conférence yeeg wax ci diine comme nit ñi kenn mënta wax ba ñu soppeeku kenn tam kenn mënul wax ba ñu tegu ci yoon lii farata mooy nañu bàyyi xool leen waxu Cheikh Al Hadj Malick si radiyallahu taala anhu te Serigne Cheikh Ahmad Tidiane si bëri lu mu koy nettali nee na bu ma demee ba yowmal xiyaam ma taxaw sama kanamu boroom aw ma lenn lu ma koy présenté ci sama jaamu bi ma sant ma def ko muy julli muy koor muy azaka muy aj màkk du ma ko présenté ci yooyu dara ñu ne ko lan nga koy présenté mu ni damay présenté yàlla bëgg bi ma bëgg yonent bi sallallahu alayhi wa sallam te xool leen ku toll ni Cheikh Alhaaji Malick si radiallahu taala anhu wax loolu amul lu muy jox yàlla lul bëgg yonent bi sallallahu alayhi wasallam ndax bëgg yonent bi mu dëggu ci yow yàlla mën na la ci ndax yonent bi nee nañ ku ko sopp fa mu nekk ëllëg foofu ngay nekk gis nga julli azaka aj mag woor ku yaakaar ni moom moo lay dugal aljana da ngay nax sa bopp loolu dugalul kenn aljana gis nga yàlla financement bi mu la defal ci énergie ci kattan pour nga mën koo defal yooyu bu ëllëgee ngeen taxaw yi ñaar mu war a régler jël financement ca loolu yow doo dese dara dara doo ko dese ndax am na ku bëgg a jóg mënta jóg yow nga mën a jóg dox ci say soxla loolu ku la ko defal yàlla am na ku bëgg a xalaat mënta xalaat yow nga bëgg xalaat xalaat fi nga toog lépp sotti yàlla defal la loolu yàlla fu mu ko jëlee ba defal la ko loolu bu ngeen naree taxaw ëllëg yàlla di ko régler ak yow ba nar koo fayeeku ci yow dama ne kenn du dese dara yàlla lim moom lépp bu ko jëlee ku mu topp rek du baax kon nag li nga xam ni nit sañ na koo jëf yaakaar ne lii bu ëllëgee moom moo koy dugal aljana benn te ñun ñu xeet ko mooy dimbali koo tane te yàlla tax waaw dimbali koo tane te yàlla tax suturaal sa mbokk jullit koo xam ne mënul nga koo weer ba àdduna bi yépp xam ko nga suturaal ko te yàlla tax gis nga nelaw ni mu neexee nga tëdd ba trois heures du matin nga dagg sa nelaw yépp loolu yàlla sant la ko nga daal di jóg jàpp ba sell sol sa yére tuuroo sa parfum di def la yoo xam ni ngistal taxul loolu bis bu la ko yàlla fayee nga dem aljanna yooyu moom mooy dugal alja nit aljanna fekk xeer sax xeer boo xam ne dafa nekk ci yoon nga xam ni ku ne mën na cee loru nga ni naa ko randal keneen ñëw randal ko yool bale ca yàlla di bindal bu ñu ko enregistré bu ëllëgee bu la ko fayee nga dem aljanna kon yii ñu yàlla sant muy jaamu yooyu dañ koo war a def mu neex ñu mu naqari ñu ndax dafa am lu ñu yàlla defal te lim ñu defal dafa am lu mu bëgg ci ñun mooy ñu jaamu ko kon faw ñuy julli di woor ku ci yaakaar nag ëllëg bu yàlla fayee ko lim la defal dara doo ko dese dara doo ko dese kon ñett yi nga xam ni moom la sëriñ Abdou Aziz tënk muy yàlla yonent bi alquran ku ci tënkuwul sànku nga ci tënkuwul sànku nga ak tarixa boo mën a bokk ak tarixa bi garanti buñ mën a joxe boo tënkuwul ci yooyu sànku nga may laaj nag ndax gaa yi li ñuy wax dëgg la wala du dëgg may laaj ndax gars yi li ñuy wax dëgg la wala du dëgg boo doonee tiijaan boo booy booy booy booy génn àdduna booy sukuraat doo ko yëg buñ la dugalee ci bàmmeel bi ñaari malaaka yërmbaane ñoo la fay fekk laaj la laaj boo xam ne bu teey la booy jéggi siraat yow daanaka dafay mel ni malaaka day ñëw këf la dem ak yow may laaj kan moo gëm loolu kan moo ko gëm ah <laughs> gars yi ñu ngi koy nettali rek waaye gëmuñ ko de billaahi gëmuñu ko ñoo koy nettali di ko wax waaye gëmuñu ko gis nga yàlla àjjana yim ñu dig àjjana yim ñu dig dañ koy wax bis bu ne waaye gëmuñ ni sax yàlla dañu defal lool gëmuñu ko